الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين استعينك ربي والاستحانة إلى بك وأحمدك ولا زناح إلى عليك وأسلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي جعلته رحمتك للعالمين وجعلته مسك القتام لظاهر المرسلين وبحر mbokk yi ñuy seetaan te di ñuy seetaanee fii ci RTV ci seen émission bi ñuy tuddee Mizanul Islam fil Haya dellu si nañ beneen yoon ànd ak yéen ci seen émission bi di leen ndokkeel ci ajjuma ji di leen ci ziyaara di leen balu àq di leen balu àq di amaat yéen bu sell pour ànd ak yéen ci jotaay bi dina rafet nag comme ni ñu ko baaxoo def ñu jërëgal jëf mbokk mi ñu fi toogatoon aljuma passé muy oustaz imam Mahmoud Ba Ahmed Ba ñu doon jàngateeg moom wàllu tasawuf àjjuma bi ci topp ñu doon def suñ premier novembre ñu ngi ñaan ñoom ñëpp kenn ku ne lañ nga fa jottandi ci ay kàddu yàlla na dëppoo ngërëmal yàlla yàlla defal leen ko fii misaani asanaatim tey nag ci kàttanu yàlla ak coobareem ñu ngi leen doon digg na leen bu ñu yàlla mayee fekkeek tal danañ fi toogaat beneen boroom xam-xam ak beneen tomb waxtaan yàlla na nañu fekkee nañ ko tal nañ ko ñu ngi koy sant ci loolu xataa yarda tey ñoo ngi dalal benn borom xam-xam bu ñu tuddee Alaaji du Cissé xam naa sant bi rek moo ci xaw a doy waar Alaaji Modou Cissé eh, jàngkat la jàngalekat la gës gëstukat la di animateur émission bu ñuy tuddee Wadduha ci rajo bu ñuy tuddee Siiwal FM jombut loolu sax moo tax ñu dalal ko baatu Wadduha moo tax ñu dalal ko tey Alaaji Modou Cissé bind ben téré adressé ko wadduha wadduha nak mu don aw saar ci alquranul karim mu bari ay ngëneel bari ay taxaway ñu dalal ko pour jema jangat ak mom téré bo mu bind tuddee ko wadduha alaaji modou sise yegsi na ci jotay bi ñi ngi koy dalal jamm diko massaw ci coono déplacement bi diko ñaanal jëf ji yalla bu mu neen yàlla ko def fi misani amin amin amin eh, alaaji modou kon gannaaw buñ la nuyo mm-hmm. ziyaare la balu la ak baal la ak mm-hmm. ñu ñaan yàlla leeral sa làmmiñ ba li nga bëgg a leeral jaam yàlla yi mën ko jariñ amin amin <laughs> jot nañ téere boo bindu tuddee ko Wadduha mm-hmm. Wadduha mu doon aw saar ci alquranul karim mm-hmm. mu doon ay wax yu bari yu ca nekk am ci yooyu yonent yàlla Muhammad lañ ko adressé. Mm-hmm. am ci yooyu waaraate wa dafay war ba te ku dellu si waat ci ñun tey. Mm-hmm. Mm-hmm. ci nit ñiy xiirtalee ci wàllu jirim. xañ na loolu taxumaa jóg. Eh, te li ñu xam baaxoo ko xam ku bind ab téere dana am lu la motifier ba nga bind ko. dëgg la. loolu moo taxoon ñu bëgg a xam yow en tant que gëstukat. di borom xam-xam. lan moo la motifier ba tax nga bind ab tuddee ko Wadduha bu loolu leeree bëggoon nañ xam téere bi nga bind tuddee ko Wadduha lan moo nekk ci biir téere bi ak baatu Wadduha lu muy firi alaaji Maodo incha allah baax dama xamsu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahimi maliki yawmi ddin iyaaka nahbadu wa iyaaka nastahin ihdina siraat almustaqim siraat allasina anhamta alayhim خير المحدود عليهم ولد بحق ربي اسرح لي صدري ويسر لي امري واحلل حقدة من لساني يفقه القول سي احمد تيجان نوي لي نوي دي لي سياره دي نوي برب دي di leen ziyaare di leen ñaanal yàlla yokk fi tawfiq fa tabarak la comme ni ko waxee nu sunu jotaay tey doon sabab kitaabu doxa mm -hmm. kitaabu duha dëgg la wadduha saar la si alxuraan saar la boo xam ne macha allah dafa am lu bëree bëri bëri bëri lu nu si lu nu si doon sàkkoo barke mooy tax yàlla bi mu dogalee nu am émission suñu émission tudd wadduha nu amoon yéene yéene àddina bi yépp jariñu nu dogg woon ne danañ jéem a defar téere boo xam ne lépp xam-xam lay doon xam-xam boo xam ne dina mën a jariñ jamono ba nu yàlla dimbale ba mu pare it nu dippee ko turu sunu émission muy Wadduha nga mën koy tekkee ne mën nay doon yor-yor waaye day saar bu bari barke macha allah ndax ni ma koy wax bu ñëpp amee barke doxa rek danay am barke walla sa fa yoxti karab bu ko fa tarda te macha allah ku nekk rek war nay ñaan. borom bi yokkal koy xéewal ku si nekk du war nay ñaan walal aqiratu xayrun lakk mina foto fa tabarakallaa bu dee turu téere bi foofu lan ko jële te mooy émission boo xam ne Duha la tudd yàlla dogal nu bind téere it boo xam ne 313 pass la te lépp lépp lenn génn si sunna nu fabaat tur bi dippee ko émission boobu nuy def muy doxaa su fekkee si wàllu tur bi loolu mooy sababu kitaabu Duha Cheikh Ahmed Tidiane. Hmm. lan moo ne ci biir téere bi. fatabarak la téere bi li si nekk si ngëneel bari na dinaa di wax ne jaadu na jullit bu nekk wettalikoo ko ndax nan ko commencé si laab mën na ne juróom-ñeenti chapitre la maanaam juróom-ñeenti néeg yoo xam ne néeg bu si nekk rek ay leer kese moo si nekk yoon bu njëkk bi laab. te yonent bi sallallahu taala alayhi dafay wax ne ataharatu nisful iman nu seetlu ni jamono yi bi lëndëm gi bari na jafe-jafe yeeg gàllankoor yeeg eh, yenn tawat yi yenn jafe-jafe yu bëree bëri bëri yoo xam ne mu ngi xew doyadal boo xam ne doon ko doyadal taxaara moo koy waral mooy sabab bi bari na si ñoo xam ne bi man la wax nan la ni sangoo sangu bu jaar yoon jafe na leen nan la ni jàppee jàpp bu jaar yoon jafe na nan la laab tamit di def ci jullit dese nañ koo xam mooy tax yi nan nu ni nu ko ubbee ci taxaara ci taxaara mooy laab am na yeneen ak yeneen yeneen i bunt yoo xam ne bii mu ngi ci bokk na ci ay nawaafil ndax la mën nañoo wax ne bonus la te jaam bi day war di ut ndollent loo xam ne daf koy yokkal yiw ci téere jëfam julli nekk audience boo xam ne jàmbi daf koy am ak borom bi dina yàgg naa di wax ne képp koo xam ne son excellence may na la audience sooy dem da ngay def si sa xel ne la nga fa yóbbu ci doléance dana saafarawu jaam bi saa yu jàkkaaroog borom bi kàbbar ne allahuma rek ma ngay am audience ak diggam ak borom bi doon diggante boo xam ne diggante buy jege la ci boo ne allahuma rek yàlla ne la la bay ko nu indi sa ay nawafil yoo xam ne nawafil yu am ama am solo la si loo xam ne dinay leeral xol ndax xol yi Cheikh Ahmed Tidiane xol yi tilim nañ léegi. xol yi ñuul nañ kañaan gi bari na am say nawafil yoo xam ne macha allah boo ko dee def day raxas xol ba lenn luy naka sudul noonu yàlla lépp luy naka sudul noonu yàlla daf koy dëddale ak yow. def say nawafil yoo xam ne day dàq duru wala xosnu fa tabarakallah tiitaange wala njàqare joo xam ne bii da nga bëgg a deyanteeg borom bi jalla jalaaluhu nekk lii kat diis naa la ko. nga fanqal ma ko ay nawafil yoo xam ne fa tabarakallah ma nga fa danay faj aajo yooyu day nawafil yoo xam ne bii day gën a jegale nit keeg boromam foog naa naafila yépp sax macha allah bunt ba mooy gën a jegale nit keeg boromam loo si def tawasul nga door ko say yokk nawafil yooyu tamit ma nga sa fa tabarakallah <clears throat> mu am si tuuti si ay ñaan ak njariñul fatihatul kitab dinaa di wax ne alxuraan 114 suuraat yi yépp mën na wax ne mu nga tënku si fatihatul kitab firnde ba ni jox nit mu xaw koy comprendre tuuti rek mooy saar bu mu ñëwul si julli saar boobu du wér kon tegtal la si ne ne fatihatul kitab léppi alquran mu ngi si nu indi tuuti saay njariñam pour nit ñi gën koy bëgg ndax bari na loo xam ne sax na tijaan nit ñi dañu ko xamul suñu ko xamal rek dinañ ko bëgg te fatihatul kitab macha allah aliwa lu mu gàtt gàtt gàtt danañ ko wattu moo tax ñu indi si tuuti si ay njariñam yoo xam ne bii danay dimbale nit si dundam si fatihatul kitab asmaulaay la xusna yi <coughs> damay tënk tuuti rek lu nekk si téere bi mm-hmm. nga xam ne doon tew asmaullahi yépp xusna la muy 99 tour yi nga xam ne moo feeñ yooyu it ñu indi si lenn si ay njariñam pour nit ñi gën koy gëstu nit ñi gën koy bëgg nit ñi gën a xam ne suñu ko amee rek ñàkk lépp nga fa ndax eh, ñaan du nangu te jaarul si jalla jalaaluhu te borom benn walillaahi asmaal xusna fatuhu biha mu jaadu ñépp ku ko wattuwul tamit miin ko moo tax it nu def ko si téere bi pour nit ñi gën koy bëgg nga xam ne tur yàlla booy ñaan rek nga jéem a nuroog moom tuuti fa tabarak la su loolu amee rek xol yi yëpp day defaru te ni ñu koy yàggee di waxee mooy si <clears throat> sunuy ndaje mooy yéene bi mooy ñëpp mucc ñëpp yokk moo tax nu góor góorgóorlu sunu kem kàttan loo xam ne bii dina jariñ xeet bi nu jëm ko bokk ñoom loolu bokk na si sababu kitaabu duha tey eh, Alaaji Modou Cissé bu fekkee dégg naa la mm-hmm. feeñalal nga ñu eh, téere bi mm-hmm. li tax nga bind ko mooy baatu wadduha dafa dikk fekk di tekki yoor yoor mu doon saar ci saari alquranil karim mu doon saar wu ànd ak ngëneel ràññeeku mel na ni saar wi musta dañ di la ñàkk a neex. Mm-hmm. wallaahi nga am tuddee ko saar woowu. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu doyut. nga gëstu ci saar wi. di ci gëstu di ci gëstu. ba loola woomat la nga ne kon kat naa bind li ma xam ci saar ab téere. adressé ko saar wi. pour sama pour sama gëneel gën a firndewu. wallaahi wallaahi ci bëgg saar woowu dëgg la loolay sababu doxaa eh, nga wane ne saar wi. kon téere bi. buñ ko déggee. mooy li nga ci dëxëñ. yaatu na trop. mais pour boo ko tënkee. Mhm. dëxëñ nga ci ci départ bi li ñuy tuddee taxaara muy laab. Mhm, mhm, te laab. Mm-hmm. mooy fondement wu dund. wallaahi wallaahi wallaahi mooy fondement wu jaamu yàlla. Mm-hmm. sa jaamu yàlla du wér bu set amul. Mm-hmm. nga gis ne bala ngaa sangu. bala ngaa jaamu yàlla faw nga set moo xam nga set ci cangaay moo xam nga set ci njàpp. nga feeñal na téere bi dëxëñ nga ci ay nawaafil ndax naa la dafay jegali nit ak boromam. wallaahi wallaahi. day raxasab xol. day dàq kañaan. day feeñal bëggante. day yokk maye li jàpp tamit. day joxe li jàpp ba bu ne allahumma rek borom bi ne la la bàyyi ko. nga seeñal <laughs> na téere bi mhm. dëxëñ nga ci li ñuy tuddee faateetul kitaab ak i njariñam lenn ci ay njariñam ci ay njariñam mhm. ak ñaanam mhm. Eh, nga wane ne téere bi daxañ nga ci lenn ci mhm. asma walayil usna la ca nekk ci ay njariñ mhm. donte ne yàlla amu tur wallaahi tur yëpp parfait pour yàlla mais mhm. juróom-ñeent fukki tur yeeg juróom-ñeent yi ñu adressé ne mooy turu yàlla yi wan nga ne daxañ nga ko ci biir téere wallaahi wallaahi kon mel na ne xam nañ téere bi li ci nekk buñ ko ko sañee kon téere bi téere bi ñaan la téere ñaan la wallaahi tey <laughs> eh, alaaji Modou Cissé kon loolu daf ñuy wommat ñu ñëw ci ñaareelu question bi comme xam nañ ne téere bi téere ñaan la Mm-hmm. nan la ñuy ñaanee yàlla. Mm-hmm. bi asmaa yi bi asmaa yi layil usna comme yàlla dafa am ay tur yu rafet. Mm-hmm. yu sell. yu mu adressé lii mooy asmaa wu layil usna ku ci bëgg a ñaan yàlla noo koy ñaanee. bu loolu paasee bëggoon na nit nga leeralal ñi ci beneen faqra bi. lan mooy asmaa wu layil usna yi nga xam ne moom lañ ñaanee yàlla alaaj. Eh, tey Cheikh Ahmed Tidiane eh, fa tabarak la borom benn sant nu koy ñaan. te mu ni dig ne sunu ko ñaanee mu nangul nu te fa tabarakallah nit koy ñaan dina koy wax lu bari bari ba sha allah ma adama sax sok sakku samam dara da nga jema neexal tur ba jéem a na ngay waxe mom ba nga fa tabarakallah am lu bo yene wona am junni mana na yam xaj mu tek ci sa lo xadara hmm. borom bi jalla jalaluhu noonu la amee tur yu mag yoo xam ne bii tur boo ko siwoo te nuroog moom hmm. te nuroog moom rek fa tabarakallah dinaa koy wax ne ndab moom boo ko tàllalee jaam jaamu yàlla hmm. bu togg ba war a yàq nga tàllal ko ndab na ko dama xiif ndab la su fekkee ndab la setul da lay wax ne lii duma si def sama ñam dama lu uti ndab bu set kon dañuy dellu si ne ñaan baasu ñaan njëkk mooy nekk jullit ba pare xol set yenn ñëpp jàmm su loolu amee fa tabarak la juróom-ñeent fukki yooyu commencé si allah ba si sabur nga xam ne 99 noo la yu nu xam yi feeñ bokk bépp yoon boo si jël rek def si tawasul loo si sàkku yàlla mën na la ko yàlla mën na lay la see wuyu isa saalaka xibaadi xanni fay ni xarib noonu la ko borom bi waxee nu wax mu yonent bi salallaahu taala alayhi sallam tamit waxaat ne addu xaaxu silaaxul muslim kon jullit ñiy desewun léegi lenn lu dul ñaan ndax dinaa koy wax lu bëri si samay jotaay si ne jamono léegi loo amoon rek tey la yokk si mbiru technologie ba ma waral sunu jotaay ni RDV àddina bi yëpp mën nuy seetaan amaana 50 ans si gannaaw bëriwul woon yu mel noonu bariwul woon téléphone portable yi internet lépp tey la gën a bëri waaye tey la jàngoro yi gën a bëri tey la euh, délai yi gën a bëri yooyu nag liy mën a defar jullit bi ba àddina lépp defarwaat mooy ñaan danoo danoo bëgg ñépp xem am xemman xemmemteefu delloo yaakaar si ne borom bi moo fi nekk te it moo mën a sensé jamono dinaa koy wax ne benn rësi mënta sensé jamono yàlla mi nga xam ne mooy borom jamono sa lan war a dellu ñu ñëpp tàmbale nag si laab laabal xol yi yéenanti jàmm boo gisee yu bëree bëree bëree bëri yu yàqu jamono yi kañaan ku jiitu rek nu jéem a galgal mu daan dinaa koy wax kër yi léegi lëndëm na famille jaxasoo nañ entreprise yi yàqalante baa nga fa yooyu tax léegi lépp taxaw mais nit ñi jiitale delloo si laab ak nawaafil ak tudd yàlla day raxas seen xol su xol raxasoo rek jikko rafet te fa su jikko rafetee lépp lu nu ut rek day yomb loolu it bokk na si sababu nu def téere bi pour nit ñi gën a am fu ñaan waaye asmaa ilaahi xusnaa moom kenn du si woo yàlla yàlla di lay gàntu dina koy wax ne yenn yi ku koy def rek su fekkee ne gisuloo la nga say ut yow mi ko doon def seetaatal sa bopp loo si wut tamit da nga koy war a nuru comme li ma wax rek xol mënul di tilim sa yéene di tas ak mbokk yàq ak euh, def lu yàlla gërëmul ba pare ngay woo yàlla si latif yàlla di lay wuyu si wala nga koy woo si jaami mu lay wuyu si walla nga koy woo si ra raoofu mu lay wuyu wala nga koy woo si rasaax mu lay wuyu amaana sax xaj na da gis koo xam ne day ñaan la muy ñaan muy mel ni day xaw di gis safaan bari na lu muy am loolu yi day jàdd yoon la ba tey rek mooy tax nu tàmbali képp koo xam ne bi yaa ngi dogu si lépp looy mën a dogu si ñaan yàlla na nga njëkk a defar xol yi laabal ko laabal yaram bi yéen ñëpp jàmm loo si def tawasul fa tabarakalaa yàlla dina la wuyu si Ahmed Tidiane tey eh, Alaaji Modou Cissé bu ñu la déggee mooy feeñal nga ne eh, biñ la laajee nu ñuy mm-hmm. ñaanee yàlla mm-hmm. Mm-hmm. wan nga ne yàlla buñ koy ñaan dañuy dellu ci chapitre bu njëkk bi ci téere bi mooy laab set setal xol yi teewul wallaahi wallaahi su ko defee jël benn tur ci turam yooyu. Mhm. dàq ci sa xol doyloo ko xam ne benn tuuti aussi. dàq ci sa xol kañaan wallaahi wallaahi wallaahi. wala bëgg a doomu aadama. Mhm. te xam ne mbir yëpp du kenn yàlla la moom. wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi nga wane ne loolu moom la ñuy ñaanee yàlla. Mhm, nga ne yàlla dafa am ay tur yu mu adressé boppam. muy juróom-ñeent fukki tur ak juróom-ñeent. mu commencé ci turu Allahu. ba ci saboo terminé ci tur bu ñuy wax saboo. nga ne juróom-ñeent fukki tur yi ak juróom-ñeent. Mm-hmm. day boo ci ñaanee yàlla mm-hmm. yàlla day nangu Mhm. boo ci ñaanee nanguwul. war nga toog xoolaat sa bopp. wallaahi lu wér lu weer lu wér. nga feeñal na ñaan yàlla moo ñu ko sant. wallaahi dëgg ndax moo wax ne. Mhm. bu fekkee sama jaam yi laaj man laaj nañ ma la. Mhm. wax leen na leen man ku leen. jege laa wallaahi wallaahi damay wuyu wooteef aji woo saa yu ma wooyee. comme ku jege nit ki saa wooyee mu wuy si la. boo ko wooyee wuy si la am na lu xew. wallaahi lu wér lu wér. bon nga feeñal nañu ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam joxe na ci firnde. wane na ñaan. mooy ngànnaayal jullit ci am riwaaye bu wax ne ñaan mooy yuq jaamu yàlla wallaay wallaay am riwaaye bu wax ne ñaan mooy jaamu yàlla mm-hmm. mu mel ni kon ñaan mm-hmm. borom xam-xam yi d'accord nañ ne mm-hmm. l'islam daganal na dëgg la dëgg la d'accord nañ ne ñaan def na lu ci àddina mën na lu nekk rek kon suñ demee ba yegg ci jamono boo xam ne mel na ni ñaan buñ ko ko sañee tuddee eh, lam mënoon fa koo lott ci li gën a nat wallaay foofu laay jëm si ak yow dëgg la dëgg la bu ñu xoolee démb ñaankat yi buñ ñaanee yàlla nangu wallaay wallaay buñ dogoo yàlla def tey nag la ñaankat yi gën a bëri comme ni nga ko waxee technologie tey la gën a bëri. wallaahi wallaahi tey ñi mbubboo sëriñ. ñi mm-hmm. sant si Seex Ture. tur di mbubboo sëriñ tey la gën a bëri. wallaahi wallaahi mais fa mel tey lañ gën a lott ci ñaan yàlla. wallaahi wallaahi mu nekk problème mu ñu bëri. Mm-hmm. te man ci ñooñu ci laa bokk. Mm-hmm. lu tax ma bokk ci ñooñu. soo demee fële da nga fa fekkoon benn waay boo xam ne. daf daa wax ne sa àll jabi àll jabaani. mu neex yàlla mu neex yàlla mu neex yàlla mu naqadi yàlla day am. nga fekk benn waay boo xam ne efele ngaaro efele roog mu neex <laughs> yalla mu naqar yalla day am eh, eh, eh. bon nga gis waa joo xam dafa wax ni man comme alaaji Modou Cissé mhm. man duma def lu yalla nekkul mhm. mhm. ay kessé ma tax a jox di ñaan cent ans yi dimanche ba nanguwul lolu ngui koy firee wa wa xam naa dinañ koy mëna firé firee si ñi nga xamne hisbu xisbu lan mom toujours sa de leni gën di wan sen bop te machallah dina di koy wax lu bari ne nit donte woo boo ne allahuma yàlla wuyu la. bul si gis sa bopp mu ko delloo ko lépp. mooy tax eh, ni nga koy waxee bu njëkk jamono yi lu tax eh, mag ñi su ne allahuma yàlla wuyu daawoon nangu nu la ni woy maaman foog naa tur yooyu xaj na jamono yi la xew. loolu tax na yàlla bàyyee nu ak sunu bopp si ñu ko war a wax ma jiital sama bopp si ne nit saa yu gisee boppam sa la muy def yàlla daf koy seetaan lépp yàlla du tas yaakaari jaam. lépp lépp lépp lépp suñu ko ko delloo def si tawasul niye ba sell yéene woo sa nax yéene woo si nan koy waxee ay dóor mant ak marto yu kenn xamul mm-hmm. yéene ba doon lu yiw lu sell nga def si tawasul si borom bi jëla jëlaaluhu faaw yàlla am lu mu teg sa loxo soo gisee sa bopp nag su dee sa bopp nga say gis ne yow yaa yor mbir yi wala lay sa yéene mooy looy naxee ka nga koy defal wala luy tax lam lay jox gën a am solo wala wala wala wala yàlla da leen di seetaan ak la ngay def dinaa koy wax ne doon tëwëf alxuraanul karim nga xam ne 114 suuraat la benn aaya rek mën a defar lépp fa tabarakallah su nit bindoon kaamil ba yépp it ba muy saafara te yàlla génne sa lay sirru la say secret du fa fekk dara lu dul ndox boo xam ne dafa soppiku dinaa koy wax lu bëree bëri bëri barke moo wàññiku Cheikh Ahmed Tidiane barke wàññiku la gis lu bëree bëri li koy waral nag euh, macha allah léegi tarbi nit na mu daan tarbi waaye waay juram ñaare gën nay manqué mu ngi gën di manqué donte mu ngi am ba léegi bu dee si sëriñ ba ngay jàngal tamit noonu bu fekkee même ba si sa njaatige bi nga xam ne mu ngi def si yow xam-xam noonu bu dul loolu tamit fa tabaarakallaa ni teggin amee woon nga xam ne mën nga dox si mbedd rek defaru si defaru si ba faw ndax yàlla dafa làqi gaayam si gaay yi dinaa koy wax lu bari na koo gis rek def ko jox ko jëmmi gaynde soo ko dee def tabarakallah eh, lenn du la lor lenn du la lor yooyu yëpp mànk barke bay wàññiku si yu bëree bëree bëri moo sababu si li nga wax la kay wax nag bu neexee yàlla bu neexul yàlla lépp yàlla la yàlla def leen ni seet def leen ni xaaree foo xam ne bi fa tabarakallah yow ma laa tamliku nafsun li si say an lay doon hmm. mooy nit saa yoo xamee ne bii ma ngay gis boppam sa la muy def sërk bokk na saa yoo gisee boppam si kaw yàlla loola mbokkaale la te bokkaale bàkkaar la boo xam ne borom bi du ko jéggale ki nga xam ne julli la nag tey aw si yoon comme nan nga ko waxee tey ñaan lu mu yàgg-yàgg na jàpp ne fa tabarakalaa du nekkul lu niil bu dee ma nga sa yoon ba ñaan moom du niil benn benn benn benn yoon amaa yàlla mën nay am nga ko doon ñaan ne ko oto laa bëgg mu jàpp ne oto ko soo ko amee ba lay am weer mën ngay def accident gënul si yow naa am beneen côté bu ma la ko mayee boo xam ne mën nga koy bañ a xam naa la ko yokkal si say njaboot wala naa la ko defal fanqal lii walla leneen wala mën nay dem ba say doom wala say sët mais jaam bi saa yu ne allahuma rek na jàpp ne fa laa borom bi ku ko jege la tey doomu aadamaay tas yaakaar doomu aadamaay delloo ku koy ñaan waaye borom bi jëla jëlaalu ko saa yooyu ku ko woo rek taawu sa yoon bu yàlla dana ko wuyu jërëjëf euh, alaaji Modou Cissé kon bu ñu la déggee euh, ñu nga xam ne dañuy wax mu neex yàlla mm-hmm. mu naqadi yàlla day mm-hmm. am te yàlla di leen wuyu mm-hmm. loolu ak njay la ñooñu ak njay la kii borom bi jàpp naa ne suñu suñu vérifié histoire ci jayoon namroot jayoon na namroot jayoon firawna jayoon firawna xaaruna ah, ñooñu ñëpp te ñooñu ñëpp <laughs> mujj gis nga fañ mujjee ak yàlla wala xaqibatu lil wallaay wallaay résultat bi mooy ñu ragal yàlla rek ñoo koy wallaay wallaay wa man yattaqillah yaj'al lahu maxraj alaaji modou cissé ñu ñew ci benen tomb mm-hmm, mm-hmm. eh, tomb ñaarel bi moy bi vérifier téré téere bi mm-hmm. fekk nañ tomb ñaarel bi eh, nga titré ko ismullahil ahsan manam turu yalla wi gëna mag ñu bëggoon xam ma huwa ma huwa ismullahil ahsan turu yalla wu mag woowu ngay junj moy wa ndax yalla it am turu tur wu ndaw loolu macha allah waxin la mm. dinañ di wax ne nit ku si nek tur ba nga japp ba yàlla feeñu la si ba yàlla wan la si résultat loolooy sa ismullahil ahsan ndax sa loola nga am résultat fa tabarakallah mooy tax asmaullahi yëpp akbar la ahsan la bépp boo xam ne nit am na sa bunt rek boo bàyyi turam tur ba mën a tuddee ahsan fa tabarakallah am tur yoo xam ne bii leneen la ndax du lu nuy yër loo xam ne lu nit mën a yër la si téere ama da ngay jàmm yàlla yàlla jagleel la ko wala fa tabarakallah nga mu doon loo xam ne dafa am fokkorote yooyu it yeneen la mais lépp lépp lépp lépp day dellu si borom bi jalla jalaaluhu comme ni ñu koy mën a waxee rek nit mënoon nay jàng yaasin commencé si yaasin wal quranul hakim fa tabarakallah nit yor benn tur boo xam ne ah, xaraf ya du passé ñeent fukk ak benn te day tolloog yaasin te yaas waaw waaw yooyu fa la danañ ko di tuddee tur ba si fatihatul mën nga si génne tur boo xam ne ñaar fukki xaraf la ak benn te ñëpp xam na ne fatiha fa tabarakallah xaraf yi ëpp na loolu ba si ba tur yàlla bu mu doon rek macha allah nit mën nay am jagleel goo say am gooy xam ne day gën di gaaw poids am di gën di diis tamit ki nga xam ne bii fa tabarakallah si yoroon beneen tur noonu la koy noonu lay doxe mais turu yàlla yëpp yàlla yëpp ni ma koy waxee tur bu yàlla wuyoo jaamam rek tur boobu. ahsam ahsam la. tey El Hadj Modou Cissé foo bëggoon naa ñu taxaw bëggoon naa ñu taxaw fi tuuti. <laughs> Mhm. parce que euh, dégg naa ci sa biir wax. nga mhm. junjal léegi ne. Mhm. Euh, am na tur yàlla yoo xam ne. am na jaami yàlla yu koy ñaanee yàlla mhm. ñu di ko tuddee talzam mhm. Mhm. soo ko nattee mën na nekk ay araf yoo xam ne du bu fanweer wala trente te dafay jël soo soratu yaasin yëpp wala nga am tur boo xam ne boo ko nattee du bu vingt et un araf ñaar fukki araf ak benn te dafay jël soo soratu faatiha wallaay wallaay wallaay ndax foofu euh, du xaw nekk ak jaaxle ci lenn ci nit ñi diingat am na ñu bëri dañuy diingat ñaankat yi dañ leen di ne dañoo dugal ci l'islam bi lu ci yàlla dugal eh, maa ngi ñëw maa ngi ñëw may ma yeggale laaj dama lay jox laaj bi ñu ne dañoo dugal ci l'islam bi lu ci yàlla mm-hmm. dugal mm-hmm. ñu ne talsam amul ci turu yàlla yi mm-hmm. parce que yàlla allahu la tuddee boppam dégg nga latif saburu shakuru kon nag luy xilaat nga mën fee bàyyi allahu bàyyi fi latif bàyyi fi turu wala man di neex jabaaru muntaqimu na ko fa yal bandi ràbb say arafi bopp teg di ko tuddee luy xilla eh, fat dinaa dinaa ñëw mais loolu li nu gën a tardeel ñun jullit ñi loolu bokk na si tubaab yaa ngi nii raw te li nu rawee lépp doonooy jariñoo alxuraan rek nee naa fii nuy toog di wax di RDV la wax kanaal bi nga ko mën a jàppee pour nga xam ne RDV ngay am soo passé canal boobu ba leneen ngay am àddina lépp lépp dañ koy six chiffres lay dox six chiffres lay dox secret lépp di dox si six su nu gëmoon alxuraan doyloo ko gëstu ko fa tabaarakallaa danañ raw borom technologie yi danañ leen rawee lu bëree bëri bari di nga joojoo nag ak képp koo xam ne bi yaa ngi say jéem a gëstu say kem kattan danay am ñoo xam ne lay seen yéene mooy xilla indil noo xilla bëri fa tabaarakallaa bëri na loo xam ne bii mu ngi dox suñu jamono daaw am si jamono yonent bi salallaahu taala alayhi wa te du lu diine di daq bëri na macha allah. Mm-hmm. te lii na la ko waxee lépp day dellu day dellu si chiffre ndax. aaya alxuraan boo jël wala saar boo jël wala turu yàlla boo jël am na lu muy natt loo xam ne bii su fekkoon ne mën na tolloo naag lu ñuy wax balance loola lay peese noonu nag fa tabarakalaa la nit mën a amee la yàlla mën a jagleeli nit ba nga xam ne fa tabarakalaa dinay am ki waroon a tukki dem fii ba ndar yor welo yàlla mën na koy jagleel mu yor waruwaay boo xam ne dinay gën a gaaw waruwaay boobu fuuf mais du tere ñëpp it fa tabarakalaa foofu lanu jëm loolu laa lay mën a tontu si loolu. jërëjëf El euh, Hadj Modou Cissé. Mhm. Euh, génnaguñ ci tomb boobu. parce mhm. que Mawlaay yooyu ñu nekk. Mhm. Euh, wane nga ne turu yàlla bu ne dafa am nattuwaay. Mm-hmm, mm-hmm. maanaam mm-hmm. àddina bi ci chiffre lay dox. RDV bi ñuy defee tey am na canal boo xam ne feeg yëguloo ca doo ko am. dëgg la dëgg la soo ko passé doo ko amati doo ko amati. nga ne tubaab yi ci loolu la ñu rawee bu ñu gëmoonu chiffre kon ñun duñ toog di. wallaay wallaay discuter talisam lu war a nekk nag lu war nekk parce que calcul moo ko indi. te ah, wallaahi wallaahi bon léegi euh, mu mel ni. gannaaw boo waxee loolu dama fekk ci sa biir téere bi nga tudd ismullaahil ahsam def fa allahu wa amanahu min xawfin loolu mooy lan asmaul husna yi dañ ne yoon la yoo xam ne boo si woowee yàlla yàlla wuyu la kon ki nga xam ne day ut kiirlaay ki nga xam ne bëggul la ragal dara dañ ne wa amanahu min xawfin yi moom lay booleeg asmaullaahil husna yi di koy jëfandikoo du dajee si dundam si kàttanu yàlla barke asmaul husna yi lenn lu muy ragal ni ma la waxoon rek bëggoon nit ñi bëgg ko moo tax fa tabarakalaa nu baaxee leen ko. Hmm. nu man koy liir tamit si français nekki noonu arab bi. ndax taabir bii nga bind ci téere bi def allahu hmm. wa amanu min xawfin hmm. allatifu wa amanu min xawfin ashakuru wa amanu min xawfin ne noonu nga ràbbee asmaulahi usnaa yi ba mu jeex ndax ràbbin bii nga ràbb lu am tegtal la واتكتل ببرم بنو وحنا وننسل من القرآن ما هو صفة ورحمة للمؤمنين تجلل نمك وحنا أمنا أمنا أمنا ميديكا ما يوحنا دونك فك فن لدلسي فارماسي برم بتموي القرآن فتبارك الله لولو يتخ لب دف لب لب لو خمنا لو يفج عجلو مونيسي تايت نيان دو أغ مكو جار أغول àggul si borom bi jalla jalaaluhu du yéeg lu dul yàlla daf ko nangu moo tax asmaaloon xusnaa yi nu ubbee ko pour nit ñi bëgg ko pour lépp loo xam ne lu ni sàkku la bu fekkee kii dàq la mu jël wa amanahu min xawf bu fekkee kii ut xam-xam mu jël rabbi sidni xilman wa aman ki allah ba si sabuur bu fekkee ki nga xam ne yiwu àddina yiwu àllaaxira tamit mu jël rabbana atina fi dunya aaxira wa fil في dunya xasana wa fil axirati xasana allah ba si sabur bu fekkee nit ki nga xam ne bii lu muy xéwloo lay ut lay sabablu tamit mu jël at xamahum min jooxin yàlla mi nga xam ne boo xiifee mën na lay baaxee xéewal nga jël ko ak asmaullahi xusna yi danoo nga def fayit laa taqaf waaw laa taqaf si koo xam ne bi fa tabarakallah am na lu mu ragal am na lu mu ragal mu bëgg say mucc su ko defee asmau laayin xusnaa yi lenn lu bàyyi kowul si yàlla du man si moom dara ndax ñaan asmaaloon xusnaa yi ñaan daf ko mënta gën a rëy ndax dey tur yu barkeel yoo xam ne bi fa tabarakalaa jëlee nañ si riwaaye nu ne képp koo mokkal yàlla xaraamal na yaramam xaraam na safara bëgg nit ñi miin ko nag nit ñi bëgg ko mokkal ko di si barkeelu moo tax fa nu ubbeeku ak ayat yooyu nga xam ne bi lu nit di dàq lu muy ñoddi kay ut xam-xam kii ut jàmmi àddina jàmmi àlaxira yooyu yëpp fa tabarakala mën na ko am si juróom-ñeent alhaji modou cissé gannaaw mhm. boo ñu junjalee ne mën nga jël allahu wa amanahum min xawfin mhm, mhm. Eh, jël beneen tur allahu rabbi sidni ilman allahu la taqaf wala yow yaay seet bu dëppook lenn ci ci ne la nga cay dàq booy xëcc booy mhm. défendre lu mënti ki doon nga jël benn tur ràbbee ko noona mhm, mhm, nga wane ne loolu tegu ci yoon la mais suñ delsee ci gannaaw tuuti bi ñuy dugg ci mbiru talzam yi junjoon nga wane ne boo gisee léeg-léeg euh, affaire bi ñaan yi xaw a jafe ngay ñaan cent et dimanche mu tëne du nangu dafa am lu xaw a manqué ci ñaankat yi mooy tarbiyu tarbiyu wala nga tarbiyu jël ndigal fonk sa ndax loolu suñ ko suñ ko nattee bu ñu xiyaasee wax jooju téere bii ma fekk nga bind yow tey ma dem jël fa rek allah wa amanaw min xaw fin commencé dóor di sikar ci lan laa koy teg ndax tar bi wuma la wutuma si xaar loolu loolu nuñ koy wallaay wallaay eh, dana dana ko fa fekk ndax yéene bi yéene ki koy defar mooy ñëpp jariñu si comme que boobu yéene la ñu am dañuy bëgg macha allah képp ku ko am rek nga am si boobu barke nga am si ndigal boobu it te léppi lu wër la fa tabarakalaa dangay gis ñaare nit di junj duy àggale dinaa koy wax ñu bëri te koo xam ne sooy waxee ñëpp ngi lay bàyyi xel ñu si bëri bokk day mel ni ñëpp xëccal nga leen robina koo xëcc robina ba pare na da ko war a bàyyee caabi nga xam ne fa tabarakalaa ku yàlla dogal nga am ko si giiru dund lépp loo bëgg a sàkku si kàttun yàlla soo fa delloo mën nga ko fay fekk dama ko waxee woon rek si eh, aajo moom. lay nit di ñoddi la ak la nit di dàq te yooyu yëpp fa la mën nga ko am si kitaabu Duha lenn génn si sunna fa tabarakallah uh-huh. tey Alaaji Modou Cissé ñu bëri dañuy contesté uh-huh. ñaankat yi jëm ci yàlla uh-huh, wala ñu tuddee seen bopp ay sëriñ ne léegi mbir mi dañ ko dañ ko dañ ko commercialisé masalan soo ñëwoon ci benn sëriñ ne ko dama am problème damay tiit dama bëggoon nga dimbale ma ci lu may man di ñaan sama borom mm-hmm. daf lay facturé nal pour ma jox la baatab laa taqaaf mm-hmm. Mm-hmm. nangam nga may fay te laa taqaaf moomu ko yàllaa ko wàcc wallaay wallaay lu wér mu nangu la caa facturé xaalis ndax facturé boobu ngay facturé nit ki pour jox ko tur ba laa taqaaf am na tegtal ndax loolu wér wallaay tegtal ba de day dellu si la nga waxoon léegi rek xaj na sàkku barke mm. mooy tax ka koy sàkku mën na ne lii barkeloo naa si waaye ka koy joxeet bu mu jàpp ne moom lañ ko légaliser ba mu ne nangam nga may jox pour ma jox la ko loolu it fa laa du yiw te loolu yi duy gën a barkeel xam-xam mooy tax ñun yàlla dimbali ñun suñuy jotaay toujours lépp loo xam ne danay mën a jariñ nit dinaa koy wax nag ne am na looy xam ne du ñëpp la ñu koy légaliser ah sañu ma woon a génn man mii Cheikh Ahmed Tidiane ngàbbu pistole sañuma ko nax légaliser lul ma ko kasaa day am yoo xam ne bii na ma la koy waxee rek mooy am na si yoo xam ne du si dënn yëpp la xaj mooy xam-xam boo xam ne mën nay def nag sudul noona yooyu waaye lépp loo xam ne luy jariñ la jaam ñëw sàkku si si yow loo xam ne lu koy mën a jariñ la si dundam hmm. lu koy fajal xaajoom la lu koy gën a jegeleeg boroomam fa tabarakalaa luy tax su utee mu yomb loolu nit dimbali si mbokk jullitam fa tabarakalaa lu war la Alaaji Modou hmm. Cissé dañuy faral di dégg ñu ne diw dafa sikarturu yàlla ba dof hmm, lu wér dafa jàdd yoon rek nax macha allah tubaab bi machine bu mu defar dana ne cent wat lay def nangami wat moo koy yóbbu ki nga xam ne bii dafa riyaada amul ndigal la muy def xamu ko xam-xam moom boo ko amee xam ko boo ko amee ba pare xam ko gëm ko la nga yor su dee lu wér fa tabaarakalaa yokkute rek. mais am na benn kuréel bu taxaw d'accord ñoo yow. Mm-hmm. ci ni turu yàlla amul lim parce que ñu ne yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci seen mm-hmm. lay ñoo mm-hmm. musta sikar lu ëpp téeméer. te yéen bu ngeen jëlee turu yàlla di ko autoriser Cheikh Tidiane bi tey na ko sikar ko dañ lay wax jëlal baatab laa taqaf nga sikar ko. 1111. Euh, wala 11000 nangam. ñu ne loolu teguwul ci xiyaas bu wér la yokku. Ah, kii xiyaas Cheikh Ahmed Tidiane. footballkat bi ne sa terrain ba di football. <laughs> du du rek lay ñëw def la muy def. Hmm. faaw wat muy def riyaada turu yàlla booy man di jël danga koy def riyaada ay yoon di yéeg di yéeg di yéeg fa tabaarakala ba àgg fa nga bëgg àgg noonu nu koy waxee nag yonent bi moom jagleel la ma ne ko yonent bi jagleel la mooy ngeen gi mbindeef mooy roy waay jullit ñëpp loolu moom jël misaal si yonent bi ak ñun jaam yu doye di foofu la tooñ njëkk a tàmbalee waaye lépp loo xam ne bi ñaan la hmm. te muy dellu sa yàlla ni ma ko waxee laytaay ba rafet nga yénn si fajoog aajo lim moo xam tur bu mel ni latif yu mel ni jaami yu mel ni rasaax tur yooyu nga xam ne fa tabarakalaay lépp danga koy delloo si yàlla lépp lu si jaam mën a dogg yiwu rekk la nu bañ a fàtte istixfaar dinaa koy wax lu bëri bëri ak salaatu ala nabi te ismullahil ahsan la it salaatu ala nabi na ko jaam yi gën a gën a gën a gën di bari basmala tamit foog naa loolu àllewo lu mu gàtt gàtt dana dajeeg moom nuy gën di koy di koy bari yooyu nu ngi koy gën a nu ngi koy gën a ñaax askan bi nu gën di koy bàyyi xel gën di bàyyi xel lool tamit si njaboot yi bu fekkee njaboot nuy njëkk làmmiñam di jàng baas yi mimara fa tabarak la ABC lu baax la waaye nay njëkk ndax turu yàlla leen def seen neewut baatu yàlla it benn néewu si loolu danay ubbi seen xel dana leen di gën di dana leen gën di ubbi si lu bëree bëri fa tabarak laa yooyu ñu ngi koy ñaaxal alaaji Modou Cissé bala génn ci bunt bi bëggoon naa ba tey nga indi ak gindi ci lenn ci ñi nga xam ne dañuy diingat lu demee nii mm-hmm, mm-hmm. wane ne li ñuy tuddee calcul mm-hmm. ñu ne du lu maanaam nga jël turu yàlla calculer ko mu jox la 66 ñu ne loolu justice nga jël latif mu jox la cent vingt neuf mm-hmm, mm-hmm. que ñu ne boo xoolee bil xiyaas mm-hmm. man nga ràbb fii benn mbir boo ko nattee mu jox la soixante six benn mbir ko mu jox la cent vingt neuf naka noonu la tontu dëgg la dëgg la waaw loolu lu wér la fa tabarak la eh, ni ma leen ko waxee rek calcul moom ba si bala nuy am benn bés danañ am vingt quatre heures bala nuy am weer tamit dinañ am trente jours kon àddina na ma ko waxee lépp lépp lépp lépp si calcul lay dox na ma koy waxee bépp calcul bu si jaam di def comme bii nuy def fa laa génnul sunna te macha allah lu xam ne lu nit mën a jariñoo la gis si lu koy dimbali si dundam tey uh-huh. jërëjëf euh, Alaaji si si xam naa ne am na ci yoo xam ne léeg-léeg ki koy weddi sax dafa am lu muy mm-hmm, fàtte mm-hmm, mm-hmm. parce que nangu ngaa julli ci xool ci sa montor na heure julli jot na dëgg la bon timis jot nga xool ci sa montor na heure julli jot na donc woor koor jot nga xool ci jàpp na heure bi ngay jàpp loolu calcul moo indi moom mais nga nangu ko ci lii bañ ko ci côté bii xam nga loolu euh, tax tanaaqul la contre sa bopp la wallaay wallaay wallaay ñu ñëw ci beneen laaj fekk nañ ci téere bi nga junj ci du awu ismullahil ahsan eh, ñaan boobu nga def ko ne mooy ñaanu ismullahil ahsan ndax ñaan gi nga tuddee ñaanu ismullahil ahsan eh, luñ fekk ci téere sunna yi la kii asbaana rusna ni ma ko waxee lu nu fekk si sunna yi si sunna la ndax yàllaa ne borom bi am na tur yu màgg woo leen ko si fa tabarak walillahil asmaanul husna fad'uhu biha kon képp kuy ñaan rek képp kuy julli tëggam ñaan mënoo ñaan te ñaanoo si ismullahil asam loolooy sababu nu ubbi ko loolooy sababu it fa tabarakallah nu bëgg ñëpp bëgg ko ñëpp miin min ko ku xëy rek fa tabarakallah jëm koy nafar ba mu nekk si dënn yi bu si nekk rek macha allah barke ismullahil asmaulahil husna yi muy 99 tur yi dënn bu mu nekk rek da nga nekk tànneef si di góorgóorlu si lépp lu yàllay digle di du mooy lépp loo xam ne sunna daf koo tere Ala eh, alaaji Modou Cissé fekk nañ ci sa téere bobu mhm. nga indi fa eh, ñaanu suuratu fatihatul kitab mhm, mhm, ñu bëggoon xam kam ñaan boobu mooy lan ak siru fatihatul kitab mooy lan wax len nat lo len nat rek lanu sa indi say fatihatul kitab ni ma ko waxee woon ben mag daan ma wax ne ma fatiha mooy faateye comme lu nit di ut rek mu ngi mu te nee naa Aliou lu mu gàtt gàtt gàtt eh, macha allah ñu bëri wattu na fatiha wala jullit bu nekk rek war na wattu farata si moom mu wattu fatiha nu dan si joxe maye benn la rek pour képp koo xam ne bëgg nga sa xol set sikk sàkk rëy kañaan génn si ndax lu bëri nam koy waxee rek lu si bëree bëree bëri si Ahmad Tijaan noo lor seen bopp hmm. ndax danoo yéene jullitu yàlla naka sudul noonu naka sudul noonu boobu yàlla indi ko sa ñoom nan koy waxee ne ku si nekk sa résultant wu ren mooy la nga yéene woon nit ñi daaw pour yàlla defar jamono xol yi defaru naafila la boo xam ne ñaari rakk rakk bu si nekk fàtte fatiha ngay jàng soo selmalee nga jàngaat fatiha 132 132 day tolloog xal bu fa tabarak laal loolu lenn la si sindi si xal bu mooy xol te xol macha allah mooy lépp moom mu dellu si chiffre si ne nit numéro téléphone ba ngay woo chiffre la kon ko sàkkal lépp looy sàkku rek da ngay jéem a composé lay numéro bu ko defee fa tabarak la da nga fàgg muy ñaari rakk-rakk bu nekk 19 fatiha soo paree def ko 132 ni indi si njariñ yu bëree bëree bëree bëri macha allah si ay bunti ñaan yoo xam ne nit mën na ko am si fatihatul kitab kay ut doomam doon tànneef xolam leer fa tege si siratul mustaqim baatul mustaqim rek fa tabarakal ëpp naa rek boo jàngee fatiha ba sil mustaqim nga takraar ko xadadu ka nga xam ne da nga bëgg mu tege si yoon bu jub nan koy waxee ni tour bu nekk day am li mu dellu woon si ni ñu ko waxee si gannaaw léegi chiffre bu dee ki du moor nga saññe mooy deux cent quarante six nga baamu mustaxim mustaxim ba mu deux cent trente six àggale saar ba ëf sa ndox di koy jox muy naan nu ngi koy baaxee njaboot yépp képp ku sam njabot nu mu tudd rek jéem la xam tur ba danay tege si yoon bu jub seytaane du koy mon giir dundam te nan koy alal yépp njaboota si si gën ndax su manee dana la noppal tey soko ko mu lay yónnee hadiya te jamono léegi yàqu na yàqu goo xam fa tabarakalaa képp ku yalla may njabot sa yene lepp lepp lepp war nay nek mu don tanef tege si siratul mustaqim nga xamne day don yaw muy don da ngay don mom muy don yaw loolu it fa tabarakallah nu ngi koy baaxee ñëpp si fatihatul kitab ki nga xam ne bii dafa yor feebar boo xam ne xamul feebaru lan lay nu mu ngi si ba tey nu may leen ko saa yoo xëyee rek wax naa ko su jullee ba pare na ut kaas jàng ñeent fukki fatiha ëf sa ndox ba naan fa tabarakallah lépp luy tawat bu jullee gayit mu def ko lépp luy tawat bu ñuul si kàttanu borom bi yàlla mën na ko koy wàcceel yooyu lenn la si fatiha kon indil naa la si naafila indi la si sikkar boo xam ne fa laa nit mën na koy def mu dimbale ko si dundam indi la si loo xam ne njaboot mën na koy def mu dimbale ko si njabootam te loolu lu tuuti la loo xam ne mu ngi si téere bi si njariñu fatihatul kitab si Ahmed Tidiane tey euh, kon bu ñu la déggee mooy faatihatul kitaab euh, njariñam yaatu na joxe nga ci rakkaa yu ñu ko war a jullee mm-hmm, mm-hmm. joxe nga ci jàng bu ñu ko war jàng mm-hmm. ëf ci ndox naan ko euh, ba tey looy tontu gaa yi nga xam ne dañoo gis ne alxuraan faj taxu koo jóg ba aw aw benn nit bu taxaw ñu ne toog lalab deram téye alxuraan ne dafay faj ci dëgg lañu wax alxuraan faj taxu koo jóg faj taxu koo jóg <laughs> lu wér laa danan see ñoom waaye julli sañ na see def tawasul Cheikh Ahmed Tidiane kii ki ki nga xam ne pikiir man def na tawasul si ne lii buñ ko ko pikiiree mu wér wallaahi luy teree luy tere mu jël si alxuraan xam ne lu mu si barkelu yàlla mën na ko ko may fata léeg-léeg doomu aadama ko defar lii waxu yàlla la doon luy sax doon loo xam ne bii ku si def tawasul te ni ma koy waxee delloo lépp yàlla lépp loo si sàkk yàlla mën na la ko may waaye du faje ko tax a jóg comme noonu ko waxee كيمان لما وخ جي سيلا بوخنا يالا كو واتيل جولي ني واي جولي سنيا سي باركلو جولي سنيا سو دامي بو غيس محمد مو جيل بن ايا ولا بن سار داف سي توسل داف سي تبرو نيان يالا فر يالا saafaral ko loolu tey eh, looy tontu fii ñoom dañuy faral di wax ne ñi nga xam ne dañuy jël téere téere yàlla bi mm-hmm. di ci mm-hmm. ràbb ay aaye comme mm-hmm. faateetul kitaab li nga ci wax léegi wala la taqaaf demee noonu ñu ne loolu talaa ubbi diine foyee la ndax loolu amutoon démb ci jamono yonent niye ba lépp day dellu si niye ba rek lépp lu nit di def te la nga see yéena ba doon lu am yéena ba doon doon tabarruk nga jàpp ne lii moo ci sellu la bu nu yàlla bàyyee ñun jullit sañan see barkelu war maal ko lu mat sëkkit si Ahmed Tidiane nan ko yokk war warmaal dinaa di wax ne bëri na loo xam ne nu ngi koy def alxuraan si stade yi du lu nu rafetlu yàlla nanu yàlla musal dinaa koy wax man si ñaanal mbër <laughs> yàgg naa koy wax macha allah doon nañu gëmit alxuraan màggam ak teggam teg tegginal gi ñu ko war a jox eh, ëpp na bind alxuraan di koy joggi ëpp na it bind alxuraan di koy taal ëpp na def ko yére di si sotti loo xam ne mën nay nekk sobeek leneen ak leneen ëpp na ëpp na war ma ji daal na mat nan koy yokk warmal te lépp lu si nit di def tamit niye ba na sell dina di wax ne yàlla si yéene rek lay fay bokkaale léegi bëri na loolu macha allah ba am na ñoo xam ne télévision sax nee nan seen diine mayu leen nu seetaan ko ndax euh, leneen la ak yeneen yeneen nga xam ne ku nekk na nga dégg diine mais nit ku nekk la ngay yéene la ne sa xol Mm, borom bi macha allah borom bi ku bëri yërmande la. alaaji Modou Cissé gaa yi danañuy faral di dàq ne. Mm-hmm. bind saaru alquran wala ñaan ko wala yu demee noonu. toog sa koñ di ko jox nit ñi ñu ne daganul. Mm-hmm. parce que dañuy jeex seen tegtal ne. Mm-hmm. boo demee ci téere bi ñu jëkk a jàng fii ci Sénégal. mooy laxdar yi dafay wax ne. wa aklu bi diin mm-hmm. shafaa mm-hmm. dafa xaraam mm-hmm. ñu ne soo ko seetee kon fa mel ni dafa am benn groupe bu toog tëju ci seen si koñ di lekk ci diine te di di commerce ci biir diine loolu wax ko diine moom diine yi borom bekk moom macha allah légaliser luñ ko kenn ku si commerce yàlla it mën nay jagleel doomu aadama na muy jaglelee nit fa tabarakalaa te bëri ñu muy jagleel mën nay jaglelee nit ba nga xam ne yaakaar ne neen ko waxee ñaan yaakaar la rek moo tax dinaa di wax toujours yàlla na yaakaar dellu si ka nga dajal sa mbedd ma am sa moom yaakaar tàllal koy loxo bul xeeb loolu ka nga xam ne biit fa tabarakala am na lu ko yàlla dénk ndax yàllaay maye nag macha allah. sunu kilifa yi fi nekk yëpp yàlla yàlla yokk seen leer sunu xulafaa yi fi nekk yàlla yokk guddal seen fen wëral seen i cër fépp fu nu àgg rek alxuraan moo leen fa àggal ak warmaal alxuraan kon fa tabarakala noo xam ne jagle la ngi fi. képp koo xam ne yaa ngi woote sa alxuraan daal Seex Ahmed Tidiane war nga doon tànneef war nga doon it koo xam ne ku la gis rek xam ne alxuraan a ngi si yow loolu it nu bàyyale ko xel ni may tooñi lu bëree bëri sunu mbokku séeréer yi te nu xaw fii bëri macha allah yooyu tax nit ñi yaakaar xaw di wàññeeku waaye macha allah. li fi nekkoon ba léegi mi ngi jógu fi. wallaay li fi nekkoon kon daa am ñu ci dugg ñu ci te Sénégal macha allah ñun sunu tiitër mooy mag ñi ni ma ko waxee te mag ñi alxuraan a doonoon seen lépp fa tabarakallah kon. macha allah alaaji Modou Cissé gis naa nga junj ci sa biir téere bi. Eh, mu mel ni lu ñu tuddee xam suuna xaaf. waa xam suuna xaaf. mu mel ni dafa am se xam suuna xaaf secret buy joxe xaalis. wallaay wallaay. xaalis moom ñëpp ko soxla yaakaar na man ak sama technicien yi soxla nañu ko. waaw am na loolu bëggoon naa nga leeral lañu loo ci. xam suuna xaaf ma nga fa daraaximul kiis. xam naa bu dee la ngay wax si mbiru xaalis. xijaab hmm. eh, rasul nga xam ne kiir laay bu rëy la macha allah. daqaayiru haruna rasid yooyu yëpp mu ngi si téere bi. waaw dara yu mul kiis lañ bëgg a xam. li ne wax <laughs> li ñu wax eh, karafil tamit. karafil ma ko waxee karafilu nga xam ma macha allah. nee kër war nan ko meebule karafil. Eh, moom it ma nga fa fa tabarakalaa yooyu yëpp allah nasul la hamne xam ne doha, ngi France, kitaabu doxa am na français pour ki nga xam ne français bi la jàng am na tamit pour ki ko bëgg a jëfandikoo. dara ma gis allah lépp day dellu si ñaan day dellu si ñaan sax ma tijaan te ma allah am lu am solo. man nga doon jaayandoog nit ngeen génneendoo moom mu wër ñaari koñ jeexal xaj na ma xaw a wër Dakar yëpp. te dara du dee te wallay loolooy tegtalu ne ñaan am na fa tabarak la ñaan am na lu si ni de def fi sama tijaan ku ñaan moom soo delloo lépp yàlla rek yàlla lay doon waaye boo sa gisee sa bopp mooy waral lii nu nuy tooñee léegi maa man ak wala ay dañuy sirkoog dañuy lii ak dañuy lale fa tabarak la hmm. mais yooyu yëpp ay nastu la yoo xam ne yu. am solo la fa tabarakala mu ngi si kitaabu Duha tey Alaaji Modou Cissé eh, yegg si nañ ci fi ñu yëkkatee jotaay bi mm-hmm, mm-hmm. yan kàddu ngay tàggatoo ak yan kàddu ngay dénkaani xam naa fàtte nañ si lennat si njariñu yaasin mu ngi si ak mm-hmm. ne dañoo yéene def kitaabu yaasin tamit fa la am na lennat si njariñu yaasin def nañ ko si téere bi 313 pages la yoo xam ne lépp lu mën a jariñ jamono la lépp lu mën a jariñ askan bi la fa la nu yéene woon lu tolloog ñaari at nu nekkoon si doon yëngu suñu kenn kattan lépp loo xam ne jóg na si nu ngi koy sante yàlla sant si ñi nga xam ne ñoom la yàlla dogal nu bàyyi ko si ñoom muy sunuy ñaari way jur te yàlla dogal ñoom ñaar ñëpp nu nekk bar sàq nu ñaan yàlla ji yokk seen leer yokk leen yërëm lépp lu say gàllankoor nu ngi leen koy jéggalu wax na yéene bi mooy defaru na nan koy waxee sunu jotaayu Wadduha si ne yéene bi mooy ñëpp mucc ñëpp yokk fa tabarakala mooy sunu yéene loolu bokk na si sababu woon nu góorgóorlu kitaabu Duha pour bëgg àddina bi yëpp man koy jariñoo jërëjëf euh, Alaaji Modou Cissé kon bokk yi nga xam ne ñu ngi jëloon seen temps jàkkaarloog seen télévision RTV mm-hmm. yëg nañ ci fi ñu yëkkatee jotaay bi mm-hmm. li lii la yàlla dogaloon ñu am ko ci waxtu lu ci rafet yàlla la neex mu rafetalee ko nii lu ci manqué ci matadik ñun ñi ko doon def la ñoo ngi leen koy jéggalu di leen fàttali na leen eh, ñoo ngi gërëm suñuy invité bi Alaaji Modou Cissé mm-hmm. di ko ñaana yàlla tawfiq jëf ji yàlla bu mu neen yàlla na ko yàlla def ci misaani asanaat di gërëm suñu réalisateur di gërëm mm-hmm. suñu prono de son mm-hmm. di gërëm waa régie di gërëm suñu caméraman yi liggéey bi képp sa